¡Se ha despado por colega! Euh, ni ngeen ko mënee gis si suñu ginnaaw nag euh, ak couvre-feu bi fi mu nekk nii dañ doon euh, dox ba dajeek benn patrouille bi nga xamante ne mooy waa waa police. ni ngeen ko mënee gisee également nekkuñu ak ay oto mais ay scooter la ñu la ñu la ñu la ñu yor donc loolu nag si liñ ñu jot a expliqué mooy da leen di mun a permettre ñu mun a dugg ci biir ruq ruqaani koñ yi mais au-delà même jéem a veiller si couvre-feu bi moto yi ngeen gis nii suñu ginnaaw da leen di permettre bu amee ñoo xamante ne dañuy def yenn ñaawteef ñu mun leen dàq ba jot leen Euh, ni lañu dajé ak ñom ñom xamna ñu ngi waja dem ni fim dina ne ni ci bir ci euh, bir dëkk bi dinañ euh, ñom xamna medina bi lañuy ki euh bir Ndakaaru également ñom dinañ ci nekk donc si luñu jotta expliquer côté police moy ko ñom dañuy am ay ay élément yo xamante dañuy nekk si auto, dina am ño xamante ne ñooy nekk si ay moto mais également dina am ay élément yo xamante ñu ngi dox ci tank bi ñu nit ñu ngi ci bir dëkk bi ba bër set ba 6 h du matin puisque heure bobu le couvre-feu bi di jeex ba ci kanam ak yenen image encore ci TFM की बोले रो Baru beli Apollo Baru beli Django Ini manusia Semani jayo Balik di balik nak cirau ni Nanyu fehen nanyu kodok kolek Wow Baru beli kolek Oh bisa di apodo bisa padu di jangoro ini manusia semakin kondo nañu fexé nañu doxale mbalit bi ndax dara ñu mëna noy waawe set padu di kolé set